asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq di leen ndokkeel ci weer wu wi ñu nekk rawatina guddi yu mag yi di al ashrul awaaxir di fukki fan yi mujj ci weeru koor di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala mu nangul ñu ci suñuy koor nangul ñu ci suñuy ñaan nangul ñu ci suñuy naafila nangul ñi jëpp jëf ju baax joo xam ne def nañ ko di ko ñaan subhanahu wa taala mu tawfiqal ñu yeggali ko ci jàmm di ñaan subhaanahu wa taala ci weeru tedd wi di weeru alquraanul karim di weeru njëggal di weeru yërmande di weeru gore ci sawara di ko ñaan mu defal ñu ci yooyu yépp mu defal ñu ci njëggalam defal ñu ci yërmandeem gore ñu ci sawara di ñaan subhaanahu wa taala ci màggam gi ak mbaaxam gi mu yàggal fi cheikh muhammadul muntaka yokkoo sàmm ak mbooleem suñu kilifa yi di ko ñaan subhaanahu wa taala mu saxal nu ci ak njub jéggal ñu suñuy bàkkaar yépp li nga xam ne meññat la muy jóge ci weer wi yàlla ñu ko ci yàlla defal weer wi nag ginnaaw mi ngi ñuy tàggu dañoo bëgg a taxaw rekk ci yenn bind yi nga xam ne war nañ ko cee jànge taxaw ci yenn yi nga xam ne koor daf koy def ci doomu aadama ngir bu koor gi weesoo yooyee ñu gën koo bàyyi xel gën caa góorlu xam ne moo war a doon meññet mi ñuy jële ci koor gi xam nañ ne koor bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokk ci ponki lislaam yi waaye doon jaamu yàlla goo xam ne day yar nit ki day tàggat nit ki di sellal xolam ndax jullit bi saabu wooree ma ngay yar bakkanam waaye mi ngi yar ay cëram mi ngi yar bakkanam ci lépp lum bëgg mu juyoo ceeg moom ni ko ko boroomam subhanahu wa taala digale di yar ay cëram mu yar làmmiñam yar ay noppam yar ay loxoom yar ay tànkam ba du wax lu mu wërta wax du déglu lu mu wërta déglu waaye du jëfandikoo ci ay loxoom luñ ko tere waaye du yëkkati ay tànkam jëme ko fuñ ko tere loolu lépp ci biir weeru koor wi jullit bi da ciy tàggatu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne nit ki bu kenn képp kenn ku nekk ci yéen su wooree bum wax mukk ay caaxaan walla mu def ko bum waxante wax ju yiwadi bu mu soowoo te saa bu ko nit naree wax wax yu juunu walla mu waxante kook moom na ko xamal ne dawoor woor loola lañ cey dégg rekk mooy jullit bi ci biir koor gi ni muy bañ a lekke bañ koo naane noonu lay moytoo wax ju yiwadi wala jëf ju yiwadi bu ko ci kenn bëggee woo it wóoru ko caa topp moo taxoon mu ne ida kaana yowmu sawmi ahadikum fala yarfuf yowma idin wala yasxab fa in shaatamahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni mru'un saaimun kon jullit bi saabu bu nekkee ci koor na muy tëyee biiram du ca dugal dara ci diggante biñ ko ko teree noona lay sàmme ay cëramit moo tax alayhi salaatu wasalaam doon wax ne nit ki bu bàyyee lekk bàyyi naan te bàyyiwut wax lu ñu ko tere wala jëf lu ñu ko tere na xam ne yàlla soxlawul ak ñàkk lekkam ak ñàkk naanam lu mat a bàyyi xel man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatu fi an yadaa taamahu wa sharabahu kon jullit bi su fekkee ne dane dafa woor du lekk du naan waaye ma ngay wax ci deri jàmbur ma ngay jëw ma ngay rambaaj ma ngay jaxase ay diggante ma ngay toxal ay wax yu wérut day mel ne suñu borom subhanahu wa taala soxlaatul ak ñàkk lekkam ak ñàkk naanam moo taxoon Sëriñ Tuba radiyallahu anhu doon ñu jàngal ne koor day tekkiwul rekk bañ a lekk ak bañ a naan baraana koo xam ne bàyyi na lekk bàyyi naan te fekk te amu ca lu may ab xiif wala yaasu billaah yan ca defe ne yaa ngi woor defe ne yaa ngi ci am tuyaaba te fekk te ab xiif rek nga ciy jële waaye doo ca am dara ci tuyaaba loola sëriñ bi maa ngi koy jàngale ca masalikul jinaan mu mel ne rek dañuy firil waxi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne man lam yada qawla zuuri wala amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu sëriñ bi daal di wax ne summa siyaamu fantabih lam yanxasir fi adami l akli faqat laa taxtarir mu ne woor tekkiwut rek ñàkk lekk ndax nee na fa ruba saaimin ma al jamaa laysa fiihi siwal majaa bari na ku woor ànd ak mbooloo mi te kooram googe ab xiif rekk la cay jële waliyaasu billaah muy leeral nag kon dëgg-dëggi woor mooy lan mu ne fas sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yuxdi fatan li sahwi wax ne amsika an nazari lil xaraami wal mashi wa samci maa alkalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima kon woor mooy sa cër yépp woor li nga bàyyee lekk bàyyee ko naan nga tëyee noonu saw làmmiñ doo ci wax lu araam doo ci wax lu ñu tere nga téye noonu say bët sab gis doo ci xool lu araam téye noonu say nopp doo ci déglu lu araam téye noonu say loxo téye noonu say tànk moo tax mu ne assawmu mooy an yasuuma kullu udwi cër yépp dañuy woor waaye baraana woor lekkut naanut waaye ma ngay xool lu ko yàlla tere wala ma ngay xuus ci deri jàmbur wala ma ngay dox ci ay caaxaan loolee nag ku ko def rek dangay daldi dugg ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amat yàlla amatut soxla ci sag ñàkk lekk ak sag ñàkk a naan loolu buñ ko waxee nag mooy suñu boroom la ngay def du ko nangooti du ko xoolati de yàlla moom amul aayu ci dara soxlawul dara moom ganiyun anil alamin ku doylu la walif mbindéef yi li sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doon wax ne yàlla dafa doylu walif ñépp walif lépp nit ki lépp lu muy def rekk boppam la koy defal waaye nag la koy séentu suñ boroom fay la ko ca bu fekkee ne sàmmoonte woog nim la ko digale loola doo ko ca am moo tax mu ne kon na nga fegu ci lu ci xool lu araam nanga nga fegu ci dox ak déglu ak wax lu araam na nga sax sàmm say xalaat sam xel ndax nit ki dafa war a bàyyi xel ne am xel lu ca yàgg a nekk rekk mën naa jeexital ci ay jëfam ak i cëram moo tax da ngaa war a tàmmal sam xel ci xalaat lu baax ci xalaat lu yiw ci xalaat ëllëg ci xalaat mbirum suñu borom subhanahu wa taala baaxuk suñu boroom gi xéewalam yi xalaat ni àdduna bii kat danga nga nekk ngir jaamu yàlla waaye dëkkoo fi xalaat ni ëllëg mooy kër gu mujj ga loola nit ki bu ko dee xalaat dana bàyyi xel ci li muy def dana bàyyi xel ci lépp loo xam ne lu koy yokk tuyaaba la dana ci góorgóorlu lépp loo xam ne lu koy xañ ay tuyaaba la mu moytu ko waaye su fekkee ne li ngay xalaat lépp sa waxtu mën koo jeexal ci xalaat yoo xam ne ay caaxaan la ci xalaat yoo xam ne am pola ci xalaat yoo xam ne ak mooy yàlla la mën naa am bu yàggee say cër sax bu koy def du rëy ci yow mën ngaa dem ba di ko def moo tax say say say say xalaat danga nga koo war a saytu di xalaat lu kawe di kaweel sa yitte waaye bañ a nekk ci xalaat yu suufe yoo xam ne amul njariñ ni nga bàyyee lekk bàyyi naan kon noonu nga war a sàmme say cër waaye sàmme ko sam xel bay xalaat lu baax lu lay amal njariñ tey ak ëllëg kon woor koor gi ku ci nekk yaa danga war a yëgaale ne kon ci daara nga nekk ju lay tàggat daara ju lay yar daara juy defar say jikko daara juy defar sab jëfla jëflante moo tax bari na jikko yoo xam ne bu ñu jógee ci koor gi dañ ko caa war yóbbaloo ndax koor daf ciy tàggate yooyu yu bari la waaye bokk na ca ñu tudd ci al ixlaas mooy sellal sellal mooy nit ki li muy def lépp mu wut ci ngërëmul boroomam subhanahu wa du def ngir nañ ko wax du def ngir nañ ko gis du def ngir nañ ci ci am ay daraja ci àdduna ngir fuñ koy teg waaye lu muy def rekk ngir ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala loolee ku ca àgg loola moom la sëriñ bi waxoon ne sax ne dëgg-dëgg al muridu mooy koo xam ne lépp lu mu yëngutu rek ngërëmul yàlla la cay wut isil muriidu laa yuridu abada xayra rida rahmaani xaysu xasada mu mel na kon loolu ku ca àgg mooy ak sellal dëgg mooy al ixlaas looy def nga def ko ngir yàlla subhaanahu wa taala doo ko def ngir nit ñi kon doo gissal doo ndéggtal doo def lenn loo xam ne danga koy wutee daraja koor nag dafay dimbale nit ki ci loolu ci tàggatu ci sellal ndax ku ne xam na ne bari na jaamu yàlla yoo xam ne nit ki mën na koo def ndax day fees ngir nit ñi gis ko waaye woor moom naqari naa ngisale ñàkk lekk ak ñàkk naan moom nit ki bu koy def yàlla rek la ko mën a wan waaye jafe na mu man koo wan ay doomu aadama ni nit ki mën a jullee ñu gis ne mi ngi julli wala muy joxe ñu gis ne mi ngi joxe noona jafe na ci mbirum koor ñu gis la ngay dem rek ñu xam ne danga ngaa woor moo taxoon subhaanahu wa taala doon wax ne koor maa ko moom man maa koy fayal sama bopp jëf yëpp suñu boroom moo ko moom bu ca seppee wane ne moom koy fayal boppam loolu day wane màggu koor wane ne koor ku koy def da koy def rek ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala moo taxoon bu seetloo xasida googu nga xam ne xasida gu tedd gu màgg goo nga xam ne cheikhul xadim radiallahu anhu ma nga ca doon tàggoo ak weeru koor mooy bi mu nekkee ci géej gi ca gàttandoo woon ko ak xasida bu muy dem mu tàggoo mu tàggoo ko ak xasida xasida gi mu ko gàttandoo woon mooy yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi ba koor gay tàggu ba ga ko koor ga tàggoo ba muy tàggu koor ga def yaadal bushaaraati lam ko tàmbulee yaadal bushaaraati bil aayaati wa suwari lishhad bi kawni abdal dafa wax ne lishhad bi kawni abdallahi fiika bila ghashin wa lishhad bi anni tubtu min xawari la muy seedeloo weer wi mooy nekk jaamub yàlla waaye nekk jaamu yàlla boo xam ne amul lenn lu ko rax amul lenn lum ca rax mooy sellal googu ñu doon wax moom lay seedaloo weer wi mu seedal ko ko li chat bi kaw ni abdallahi fii ka bila xëchin alxëchu dafa bokk ci day day mooy safaanub ixlaas nit ki di wane lu nekkul di wane loo xam ne bokkut ak li am moo xam ci jëf la moo xam ci wax la moo xam ci jëflente la loola mooy xich jullit bi dafa war a fexe ba léppam sell la muy def ngir yàlla na sell la muy jëflenteeg ay niti moroomi moroomi mbindeefam dafa war a jéem mu sell ba du ca wax lu nekkut du ca wane lu amut du wane ci kaw lu la nekk ci biir loole dañ koo soxla ci kenn ku nekk ci ab jëflente moo xam ci biir këram la moo xam fa muy liggéeye la moo xam ci ay dëkkandoom la nit ki dafa war a sellal ci ay waxam sellal ci ay jëfam sellal sellal ci ab jëflenteem na muy sell góorgóorloo ci sellal ci jaamu yàllaam diggam ak boroomam bañ caa gisal bañ caa def dara loolu kon lu am a am solo la loo xam ne koor daf ci yar jullit bi dafiy yar da ci yar doomu aadama bi muy jéem bu jóge ci koor gi it lépp lu muy def rekk mu bàyyi ci xel boroomam xam ne boroomam moo amuk fay moom rek moo ko mën a fay loolu dafa bokk ci pas-pasub jullit moo taxoon nit ki bu amutuk sellalal sellal rek ak gëm yàllaam du mat kon lii tax gëm yàlla sa gëm yàlla mat mooy mën ngaa gëm yàlla xam ne am na xam ne moo am kàttan waaye doo àgg ci nag sellal say jëf yaa ngi cay rax yaa ngi cay bokkaale yaa ngi cay boole nit ñi yaa ngi leen koy wan te suñ boroom ci ak mbaaxam boo sellalee say jëf moom ci boppam mooy yëkkati sa daraja moom ci boppam mooy feeñal sa jëf waaye yow sa bopp boo ko dee jëf ngir wane ko suñ borom subhanahu wa laa amatu ci soxla moo tax yowmal qiyaam bokk na ci ñi nga xam ne danañ fa am rëccu lool jaax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko mooy koo xam ne da daan joxe lu baree baree bari fekkit la muy joxe yàlla taxut wala koo xam ne daa amoon xam di ko tasaare di ko jàngale te fekkite yàlla taxut wala koo xam ne da doon jihaad ci yoon yàlla di xeex te fekkite rek yàlla taxutoon kenn ku ci nekk buñ la wanee yowmal xiyaam lañ la waroon a fayee boo sellaloon ba nga gis ko teg ci sa bët ñu ne wax la ne nag fii amoo fi dara ndax ba ngay jëf jëfoo woon ngir yàlla danga doon jëf ngir nit ñi te nit ñi wax nañ ko am nga ko la nga ca doon wut am nga ko ci àdduna kon fii amato fi dara wala yaasu billah mu doon pertement bu rëy rëy rëy yàlla nañ ci yàlla musal kon sellal day lu ama am solo loo xam ne weer wi da ci yar nit ki weer wi da ciy tàggat nit ki kon bu ñuy génne ci koor gi day baax nit ki fas yéene ci xolam nekkat lu ma weesu woon ci lu ñàkk sell dinaa ko jéem a dabaatal ci li sama kanam dootuma waxati dara ca yàlla taxut dootuma jëfati dara te yàlla taxut dootuma wan wane dara ngir àdduna ngir puukarewu ngir rek ñu yëkkati sama daraja wala ngir ñu tàgg ma loolu di lu ama am solo loo xam ne koor daf koy daf koy jàngale bokk na ci jikko yi nga xam ne koor daf koy jàngal nit ki yar ko ci tàggat ko ci muy asabru te mooy muñ أشهد أن إلا الله kon ginnaaw sellal as sabru te muy muñ lii koor di yar ci doomu aadama bi la ndax ku ne xam na ne nit ki bu wooree dana muñ ab xiif dana muñ aw mar waaye dina muñ ci mbooleem bànneexi bakkanam yi nga xam ne bu doon koor ba bakkanam dina ko ci woo waaye bu wooree dana ko muñ ba jëflenteeg moom moo taxoon alayhi salaatu wasalaam daan na tuddee koor weeru muñ am na xadis boo xam ne da cay wax ne chahru sabri wa salaasatu ayaamin min kulli shahrin sawmu dahr foofu mu ngi tudde koor weeru muñ waxaat ci beneen xadis ne sum shahra sabri muy ramadaan kon koor bokk na ci li muy def ci nit ki mooy mu mën moom boppam mën yilif bakkanam baña topp ay bànneexam ci loo xam ne neexul yàlla kon buñ jógee ci koor gi kenn ku nekk war naa góorgóorlu ca la mu tàmmoon ci loo xam ne bakkanam rekk moo ko ca xiirtaloon mu jéem a mananteeg bakkanam wëy ci muñ loole ni mu ko doon muñe ci biir koor gi kon lu am solo la nit ki bàyyi xel ne bari na loo xam ne nit tàmmoon na ko koor gi ñëw mu mananteeg bakkanam ba bàyyi ko loole bu dee lu neexul yàlla bu koor gi jàllee daa wara woy ca bàyyi googee mananteeg bakkanam muñ ko waaye bokk na ci yi nga xam ne koor da koy jàngal nit ki weer wi di ko ci tàggat mooy dimbalente dimbale néew ji doole ak ku am aajo nga dimbale ko ca loola lu am solo la ci weer wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na fu mu tuddee weer wi chahrul muwaasaat mooy weeru dimbalente dimbale ku néew doole dimbale ku nekk ci jafe-jafe dimbale ku nekk ci tolof-tolof moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax na ci xadiis yi ne weeru koor nim daan mel ci joxe moo gën a gaaw ngelaw ngir mën a dimbale ngir mën a joxe gis nañ ne ci biir koor gi sax bokk na ci li bari tuyaaba lool nit ku woor ba ngoon nga dimbule ko jox ko lu mu doge loola yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne ku ko def di nga am yool bu toll ne bi mu am ca kooram ca moom du ko wàññi du wàññi ca kooram ga dara man fattara saa'iman kaana lahu mislu ajrihi gayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'a kon moo tax loolu am solo lool ndax koor xiif bi ngay xiif bara ñoo xam ne bu dul koor yàlla mën na leen gan ba tax duñ yëgub xiif ndax waxtu wu nekk ñi nga am luñ jëfandikoo duñ xam mettitu xiif duñ xam mettitu tumuranke waaye nit ki bu wooree yëg xiif yëg tumuranke loola mën na koo yëgloo ne ñi du ñiy dund ci loolu nag waxtu wu nekk lu dul koor xolam dana tooy dana leen yërëm fu mu gisee ku xiif dana xam mettitu xiif dana yëg xiif li mettee ba tax dana sawar ci di dimbale koo xam ne dafa aajowoo dimbalante googu nag doon loo xam ne waxtu yépp lañ koy soxla waaye rawatina buñ nekkee ci waxtu jafe-jafe muy jamonoy jafe-jafe yu mu mel ne jamono ji ñu nekk jamono ji ñu nekk soxla na lool dimbalante waaye gis nañ bu baax a baax ndigal yi nga xam ne suñu kilifa gi yal na ko fi yàlla yàggal te yokk wér muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ndigal yim ci joxe waaye wane ci yoon bëgg ñuy taxawu ñëpp ñu nekk ci ay jafe-jafe ñëpp ñu nekk ci ay coona taxaw ci taxawaay bu fés boo xam ne ñëpp gis nañ ko ngir mu jublu ci jàngale ngir jublu ci wane yoon wi nga xam ne moom lañu lislaam digal mooy dimbaleenteeg suñu moroomi jullit yoo xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe kon loola kenn ku nekk war na caa gëna góor góorlu ci biir weer wi waaye bu weer wi yeesoo it lam ca doon def ca man ko mu bañ caa wàññi dara bu ko mënta yokk it kon loolu yenn la rekk ci yi nga xam ne lu ñuy jànge la ci koor muy ay jikko yu ama am solo yoo xam ne bu weer wuy jeexee it dañ caa war a jéem a góorlu war caa gën a gën a bàyyi xel muy sellal gi ak muñ gi ak dimbalante gi mu am nag meññet moo xam ne suñu boroom moo ñu wax ne mooy meññet mi gën a am solo ci koor gi muy muy muy muy at taqwa mooy bu koor gi jeexee ku woor dëgg la ñuy xamee sax nangu kooram mooy mu gën a góor góorgóorlu ci ragal yàlla ndax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna moom la daaneele laaya ji ragal yàlla googu nag Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu xamal nañu ko ci dénkaane bi mu dénkaane woon bi muy dem ci géej gi wax ñu ci ne dëgg dëgg ragal yàlla mooy taxaw ci ndigal yàlla yi ak tereem yi ba suñu boroom du la gis mukk fu mu la tere waaye fu mu la digal doo fa jóg wa xaqiqatu taqwa alwuquufu inda al amri wa nahyi bi an laa yaraaka mawlaaka xaytu nahaaka wala yafqidaka xaytu amarak moo tax mu ne martaba bi gën a kawe ci ragal yàlla mooy moytandiku lépp loo xam ne day lor nit ki ci diine te mooy mooy yàlla fa ala maratibi taqwa ijtinaabu kulli ma fihi dararun li amri diin wa huwa almaasiyatu walfudul mooy mooy yàlla ak i caaxaan ak i neen kon ragal yàlla googu lu ama am solo la yàlla moom la dénkoon ñi jiitu woon dé dénk nu ko dénk ko ñëpp wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah moom la dénkoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa ayuha nabiyu taqillaha wala tutiil kafirina wal munafiqin moom la dénk jullit yi ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaa ayuha alladina amanu taqallaha xaqa tuqaati moom la dénk nit ñépp yaa ayuha naasu taqu rabbakum kon taqwa boobu di ragal yàlla moom la ñu sëriñ Tuubaa radiallahu anhu dénkoon ca fatxul naan wax ne usika wa nafsi bi taqwallahi alazim li annahu afdalu min kulli shay maa ngi lay dénk ragal yàlla mu màgg mi ndax loolu moo gën lépp lu dul moom kon yàlla ñu yàlla defal meññat moomu muy ragal yàlla te kenn ku nekk man koo natt ci góor góorgóorlu ci ndigal yàlla yi di ko jëf di jëf la nga ca man waaye góor góorgóorlu ci bàyyi tere yàlla yi noonu nga xam ne noonu la ko Serigne Touba dénkaane waaye noonu la ko suñu kilifa gii di dénkaane di ko soññee sax waxtu nekk ñuy sax ci ndigal yi di jëfe ndigal cay moytu tere yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla na yàlla jeexal mbas mii nga xam ne moom kenn ku nekk war na ci am taxawaay loolu it ñuy fàttaliwaale bu baax ndigal yi nga xam ne sëriñ bi joxe na ko mooy ñu sàmmonteeg lépp loo xam ne da koy day day tax du law mooy masque yi ñuy jëfandikoo ak raxasu mi ñuy jëfandikoo ak bu ñuy julli it ndigal yi ñu ci joxe ni ñu ngi koy fàttali bu baax baax rawatina julli ki gi lépp loo xam ne daal ndigal la kenn ku nekk na góor góorgóorlu ci boppam góor góorgóorlu ci njabootam ba defe ko ni ko sëriñ bi digle ndax loolu mooy suñu njariñul tey mooy suñu njariñul ëllëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 لها من أسباب السعادة ما لم يجعل لغيرها إليه سبيلا وآتاها من فواضل العبادة ما اختارت به أجرا جزيلا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه ذروة الشرف الذي لا يخلق له مثيلا أما بعد فيا أيها الناس فهذا شهر رمضان قد أومأ إلى الرحيل ولم يبق إلا القليل وبدت شموسه على أطراف النخيل فشمروا في العشر الأواخر عن ساق الجد والاجتهاد وتزوجوا من فضلها أنفس الزاد والتمسوا فيها ليلة القدر العظيمة الشان واجتهدوا في طلبها قدر الإمكان عسى أن تنالوا فضلها المدخر فإن قيامها أفضل من عبادة ألف شهر فهذه هدية min rabbikumul a'laa famaa a'zamahaa wa ganiimatun manna bihaa alaykumul mawlaa famaa aktharahaa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam inna Allaaha subhaanahu wa ta'aalaa ikhtaaral ayyaama فجعل منهن الجمعة واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر واختار البقاع فجعل منهن المساجد فاغتنموا رحمكم الله xayra laylatin fi xayri shahrin fi xayri buqaatin ixtaaraha almawla wa zayyinuu dalika bi anwaaci alqurbaat allati tuxmadu qawlan wa ficlan الحمد لله الذي يزيل ولا يزال الذي حكم على القمر بعد الكمال بالمحاق والأفول وقد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره من سهو وغفلة وذهول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أكرم عبد وأعظم رسول أما بعد فيا عباد الله لقد علمتم أن رمضان راحل ولم يبق لشوال إلا الحلول مضى وانقضى كأنه ما كان شهد على المسيء بالإساءة وللمحسن بالإحسان فزودوا بالطاعة يا إخوان wa adriku ma baqiya min shahrikum bilittihaad wa waddi'u shahrakum haadha wa qulu laa awxasha allahu minka yaa shahral qur'aani wal ghufraan layta ayyaamaka alaynaa biddawaami tatuul fa hanii'an liman huwa fiika maqbuul وفي الحديث شهر رمضان معلق بين السماء, بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر وفقنا الله للقيام بمراعاة حدود هذا الشهر والقيام بحرمته تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأنا لنا ولجميع المسلمين الحظ الوافر من مغفرته ورضوانه وحفظنا وحفظ آل الخديم بما حفظ به الآيات والذكر الحكيم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 Allah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 allahu akbar allahu akbar alhamdulillah لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر assalaamu aleykum. assalaamu.